nee na mi ngi sant kilifa yu baax yi nga xam ni ñoo ngi ci liggéey bi waa ko sëñ Mor Talla nag muy Cheikh Ibra saa yu liggéeyu sëñ Touba jógee ku leen ca gis sa xel war a dal liggéey sëñ Touba ku ci gis waa kër Cheikh Ibra sëñ Abdou Khadre da wax ni kër Mbacke Mbacke daa waram Baay Faal neen loolu da koy jik wax nga dëgg liggéey sëñ Tuubaa bii nu yor bu ñëwee bu ne rek waa kër Cheikh Ibra la dañ cey dalal xel sant bu baax a baax a baax sëñ Bachir Amar mii nga xam ne mooy jëwriñ ji loolu lépp maanaam loolu lépp ci moom mii la rek ñu ngi ko si bu baax di ko ànd ak moom di ko bégg bu baax nee liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def foofee wane ko noonu te sumb ko mooy fa sëñ ba nekkoon jël ko caméra bi nee na dañ faa sumb néegu yàlla ci ndigalal sëriñ bi te ànd ak mbokk taalibe yi sëñ Bass moom moo nekkoon Ndakaaru te fas ci liggéey bi lool di ci jàmbaar nee na soxna mam Isa Mbàkke ñu ngi ko ciy lim nee na moom sax moo nekk ci ahlul kafe sëñ soxna Isa maam Isa mu sëñ Modou Fadi Khari mu sëñ Massamba doon gaynde ci liggéey bi Amadou Soxna mi nga xam ne kuréel gi nga xam ne moom la sëñ bi bas jiite moom lañ ci dénk fànn coordination liggéey bi kon ñee liggéey bi ñu ngi koy jot seen ñëpp xam ko te gis ko mu ngoog bëgg nañu jàkka ji la wax ne fii la bu mag bi jëse wër di maa xuus mi ne laay ci jàkka la ko jotee ci laxte kaab la ko fekk moom lañ fa tàmbale akub jàngu fu ñuy jàngal xuraan ak xam-xam waaw ma ngoog nee na lii nañ ko tas ba ñëpp yëg ko ku si ne jël sëb cër ne da ngeen fulay jël ci moom kenn ku ne yaayam fulay jël sa cër ne lii maa ko sasoo. ma ngoog Mbakke. sant nañu baax. nee ngi naan ci barkeb Cheikh Modou Mourtada. Muntaxa. mi nga xam mooy kilifa ak yoon wi. fi mu toll nii. barke sama buntu muy Cheikh Mamadou Mourtada. barke buntam muy Cheikh Mamadou Mourtada. yal na sëñ Tuubaa taxaw ni saa rek baatin. te faj aajo yëpp. jërëjëf tàlle leen sëñ bi ñaan ko sëñ Cheikh Khadim waaw sëñ bi nee mi ngi nuyu di siyaare ji fi teew yëpp moom maam Cheikh Mbodj di jottali nuyoo sëriñ Cheikh Khadim ak ak siyaaram moo ma yebal ak njabootam yi nee na moo ko yebal ak njabootam gii toog sëñ Khadim ak ñi mu àndal ñëpp ak sama bokki taalibe yi ak bokki taalibe yi ngir nu ñëw teewal ko fi ngir nu teewal ko fi waaye teewaay bi dafa mel ni li ci ëppoon sax sëñ ma dikke lim kàddu yi mu jox teewaay bi sax dafa mel ni cëpp sëñ ma dikke ba jarof xam naa ndax kàddu yi cant rek la woon mbooloo mi nga xam ni ñoo dajaloo ar mi nga xam ne ñoo dajaloo boole seeni i wërsëg seen doole seen temps. ngir liggéeyal seen i wërsëg seen doole seen temps. ngir liggéeyal Serigne Touba. ba noppi jox ko ci ab cër. ba noppi mu leen di xamal ni. mu leen di xamal ni. lu rëyee ci moom amul lu rëyee ci moom amul. amul fu ngeen nekk na ngeen xam ni mu ngi ci seen biir. su ngeen ne. mi ngi suñu na ak yéen. ànd na ak nun ci lépp lu ngeen nekk. ci lépp lu ne. moom njabootam. moom ak njabootam. ak i taalibeem ak i taalibeem. loolu la sëriñ bi waxoon. loolu la sëriñ bi waxoon. nee naa ko jottali. ni ko jottali. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. sëñ bi sëñ bi. sëriñ Cheikh mat na bëri ak des bur murit ah maam Cheikh Ibra Fall sëñ Xaadim jortoon nañ ni dañ ci bokk léegi dañ la ko joxe yow nga jot na ko sëñ Xaadim mu jot na ko way juram si maam Cheikh Mbodj bisimilah jëlal ma fi yow waaw ah, dañuy dañuy jàll ci soxna Gamou direct rek moom it waaw soxna Gamou Diop ñi ngi lay ñi ngi lay teral daa di ñëw ci yow l'islam moo lay teral tey dina sargal Soxna Gammu diplôme d'honneur bii yaa ko moom ngir jëm yàlla yent bi soxna na ko jox soxna Kodou Kanji jox ko ko ana Kodou Kanji daa dem ci jumaa ji ah na ñëw jege si leen nii caméra bi jël ko ñëw leen nii ngeen taxawee ne joxal ma soxna Kodou Kanji ak xaside gi caméra jëral ma ñooñu dama bëgg lam faal bu koy génnee mu fees waaye liggéey sa saare bii dinaa ci liggéey de barke si barke si xarafa tey ren ren am naa ndigalu ñëw sar saara ndax se xadim lu mu dugg mu dugg ci biir léeg-léeg mu message message boo xam ne surtout ci ci feebaru Covid bii ma xëy na gis benn message keroog nelawuma message bu garaw ah message dañu leen de xanaa xaaj la. lettre pa bi. nee na lettre parrain bi. bi ko kuréel gi liggéeyee. bi ko kuréel bi liggéeyee. bala ñuy def dara. bala ñuy def dara. dañuy am ndigalu sëriñ bi. dañuy am ndigalu sëriñ bi. moom la ñu ko woon mu xool ko. moom la ñu mu xool ko. bi ko sëñ bi xoolee. bi ko sen bi xoolee nag. moo ko sëñ ci loxoom. moo koy sëñ ci loxoom. ñu soo ko validé. ñu soog koy validé. dem ko sëñ Cheikh. dem ko sëñ Cheikh jox ko ko. jox ko rajo bi gars yi sërmal na ah sëñ Mor Thiala yokkal rajo bi gars yi sëlmal nañu daanaka kii quoi jaala ah. yaa xayra dayfin ataa بالبشر والمداد